mbir mi ñett cër la ci am hmm. na gis nga boy ñaan li mu def ni fu ma fekk lool lay def ba pare di ceeg terang ak musax ak man hmm. kon xam na ni bayam la hmm. bayam tamit jox ma cër fu ñu dajé mënu ko ndax ñu sa papa boy ñaan ni ko ñu na sa papa wax mënu ma mënu ko dama bëgg nga koy sétti di waxtaan ak mom bës mu ne mënu ma dina fa ñëw man ko mais mbir amul jot ndax saa yow naree dem am lu am lu nekk sa kanam loo xam ne nga rek ko bala ngaa dem bés nga am nag ndax ngay bëreel yow sax xam nga ni champion la ndax fekk nga jaloo ren muy xale boo xam ne lu nekk def na ko ci làmb beeg si fii mu egg si wante yow tamit ambition yi mu am rek nga am yow da nga bëgg fi mu egg nga egg foofu mbaa nga raw te am ci yoon bi waaye li ma la yëgal mooy champion ngay bëril booy dem di bëri jéeg moom bul xool âge am bul xool poids bul xool méforme am neel champion lay bëri jil te pour daan champion

yàlla may ko say morom yu bëree bëree bëri wane ne def na de da koo def am na ñu naan sax dañ de surévalué la kenn surévalué wu la parce que ku daan guy gi daan Sa Thiès ñi daan Garga Mbossé ñi nga daan bëri nu ma fi nekkee di ko lim sax damay sonn te ku ci nekk ci xam-xam nga ko daanee daanoo ci kenn ci erreur ci dem yi nga leen di daanee teg tànk ñu ñëw nga teg ki avancé reculer ba xam ni heure bi jot na nga jeexal bëri bi kooku ndaanaan la koy def kon bëri ndaanaan ngay def waaye nag li ma lay wax nag ci bàyyi xel ndaanaan dëgg ngay bëral bu la kenn réeral ban la bàll jeexal na wala bàll amatul doole gi bul dugg ci gaam boobu dañ lay jumloo xamal may bëri li tey bëri bu rëy bëri jëkk moom bu waree am ci moom ndam dinaa yóbbu jom yóbbu xel yóbbu dal yóbbu xam-xam ba pare indi doole ndax bëri doole la nanga wuti doole boo amul doole doo daan bàll bàll nag li ma koy wax mooy boo naree ñëw bëri ak Boy Niang ni damay faj mer boo ko defee doo bëri doo xeex ndax làmb dafa am loo xam ne bëgg ko làmb dafa bëgg ko ko respecté boo ko respecté rek mu njóoy la dangay dem ba bëri bi jeex na ñu ni yaa nga toog ci suuf sa gars yi ñoo lay wax ni la daan lan la kon man yéen ñaar mu na ku ci nekk jox ba moromam cër te li ngeen def dafa rafet ndax xeetu weex yi gën ñoo service bu ñu amee bés dañuy fóonante akoladante kafre bu bés bu jotee ku nekk jël sa wërsëg ndax ku nekkay jox sa morom wërsëg kon xeex beeg xeen beeg saagaante bi ak ñàkk respect bi indi du defar dara gis nga teraanga bi la Balla defal nga doublé ko xam ni géwél moo am jom yow giir dalaa defal nga doublé lam la def looluy géwél wane li ma lay wax ak li ma lay fàttali rek bu ko fàttee booy dem di bëri ji bëri bi na nga respecté bëri bi ndax ngay bëreel ndaanaan lu hub na làmb ba tàyyi dugub làmb ba tàyyi egg foo xam ne egg goo fa booy bëreeg moom boo ko joxul cër doo ko daan